du soppi mbir yow yaay jéem sotti soppi yàlla fekk la ci dimbali la kon nag ñun nii la ñuy dundee ah nañ bàyyi tubaab yi war suñ kaw rek lu leen neex nañ ko nañ ko def bëkk démb Danemarkien boobu nekk wet bëkk démb la taal la taal ab kaabil ci kanam àdduna ñëpp di seetaan kenn waxu kon tumuraanke googu duñ ci jóg waaye noo ko def suñ bopp nag wante loolu dafa sori ñu ñëw ci suñu réew mii waxtaani diine ji waxtaani politique bi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 su loolu amee nag ku ku liggéeyut nekk sa clinique nga fekk ko fa nag rëq ndigam boobaa kenn du ci wax politiciens yi walaay ab politicien mooy ñàkk jom ñàkk jom boo koy def gisal politicien xam nga ne waxoon naa leen fii ni leen ay waa contournement lañ maanaam ñi ngi ci saxaar bi waaye bu ñu dëkk bi ñëpp dañuy wàcc wër dëkk bi karaat saxaar ga ca kanam ba ma leen koy wax seetlu wu leen koon waaye xoolal wati bi jàll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 nooy ngi gërëm ñëpp noo ngi sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf